ñoom il faut comprendre ndax ñoom ñaar dañoo jubóowul wala yaa quelque chose. Ah, xam naa suba incha allah dinaa xoolee ba zéro heure et <laughs> bu ma gisul décret ma soog a tëdd nelaw <laughs> Momo yaa ngi doon wax léegi-léegi si euh, kawu Cheikh Omar Diagne ñenn ñi nee nañu euh, Sonko lu mu wax xalifa bi mooy xamu ko. maa ngi gis benn photo boo xam ni euh, bijou euh, nga baal ma génneel ma photo très bien moom moo ñaar ñi nañu wax. c'était en euh, parcelle voilà ñaar ñi nañu wax xamante woon. meeting meeting meeting parcelle bi. très bien si si wax jooju aussi Cheikh Thioro Mbacké di mm-hmm. député ci parti bi di PASTEF. Mm-hmm. nekk aussi responsable fële ci Touba. dafa réagir ci page Facebook am mu ñuy xamal ni gisee si biir néeg. waaw ñaar nit képp. Ah. waaye am na ñoo xam ni nee nañu ñoo ngi tëb di dal naan xam nañu lan fa waxtaan. dëgër fit <laughs> ak leneen lu ma sañ te wax ci télé bi <laughs> non mais vous êtes li Pape doo pita mani lii <laughs> pita mani du mita mani de c'est coro day tooñ de non mais lii du pita mani de lii du mita mani de lii pita mani la mais saa dëgër fit te problème mooy wolof la ko bind si mais hmm. yow ñëw nga nga ñaay ñu tëju man dama ne la. Mhm. bañu ñu ba wax dayag site bi bind sax moom nee na une mhm. euh, xaw ma délégation restreinte. Mhm. ñoom ñoo dem démb cité nañ ci premier ministre. ak le ministre Cheikh Diba. ñoo dem biig ci Touba xam nga tey bu fekkoon visite boo xam ne sax luy fës la. mais dañuy bàyyi bu bëccëg ñu dem. Ah, wax dëgg yàlla wala. Euh, ñu ñu annoncé ko président daa war a dem suba tout euh, premier ministre daa war a dem suba fee. ñu annoncé ko suñ demee ñaar ñooñu buñ waxtaan ba pare. le porte-parole du xalif génn mhm. def na am na yàgg naa am soit dañ koy dañuy may nit ñi ñu dugg filmer mhm. mais nit ñi dañ daan toog ñu filmer ñu gis xal le xalif général des mourides mu mhm. yëkkati ay kàddu ñu dégg la mu wax le premier ministre yëkkati ay kàddu ñu dégg la mu wax voilà bu ñu duggee waxtaan ba noppi ñu génn premier ministre ne ah man kat tey jii ñëwoon naa tey euh, gisante ak le xalif général de mourides waxtaan nañu si nangam ak nangam ak nangam ak nangam mais sëñ bi yow ñooñu dañoo tëju guddi guddi maanaam dem si guddi la fa premier ministre dem balaa tey ji fajar ñoom ñu bind ne lii ak lii ak leen doon waxtaan. Ah. wallahi vous êtes fort yéen a mën yéen doole kenn du yéen. ñoo gën macha allah vous êtes xaw ma man lii lii moom man information boobu fan la mën jógee mooy sam problème. Ah. waxuma la ak nag kàddu gi ñu wax ne euh, ñaar ñii nga affiché bi <laughs> ci ci écran bi xamante ñoom ñaar euh, loolu moom pour man ça ça problème quoi. vraiment premier ministre moom moo ko wax. Hmm. premier ministre moom moo wax ne xamul Cheikh Omar Diagne. ñoom loolu noonu wax ñoom loolu noonu wax. te Dakar ak ci ba tey rek dama jàpp ne <laughs> wala dinañ leen dugal ba pare dañuy jël affaire bi taawi ko tout en sachant que ñun amuñu responsabilité ci ci ci information bi. Mhm. mooy mbir mi daal ci ñeer a jóge donc ñun mën nañ ci commentaire lu ñu neex parce que euh, gars loolu la dañuy ñëw wax lu leen neex soo leen waxee ñu ne bon man je n'ai fait mhm. tel site moom moo bind information bi. Mhm. donc pour man mbir moom doon na lu doy waar. Ah, wax. nga rendre compte nit ñi vous êtes fort wallaahi yéen a mën. alors Momo nu nu nu. xoolal journal bi le <laughs> journal a même de huis clos. huis clos. huis clos tête à tête tête à boobu yow nga bëgg a xam lañ fa wax ba ne Sonko lii la wax le khalife général des mourides. c'est c'est <laughs> extraordinaire et puis sax da nga waroon wax sax mu noon nga utiliser yeneen terme mais. <laughs> Ousmane Sonko xamul xamul Cheikh Omar Diagne loolu. loolu xel ah. xel xel ñaar ñu nuy gis nii ci photo bi nu reetaan ba lonko. Ah, day na waar alors moom nu nu nu wéel ba tey ak euh, plainte bi Pape Abdoulaye Touré euh, daa di dugal. Euh, di ci topp ñu ñu ñu bëri ñu bokkoon ci nguurub Macky euh, ñi si gën a fas bokk na ci ki nga xam ni euh, moom moo di Antoine Diome nekkoon fi ministre de l'intérieur général Moussa Fall chef Sow Pape Malick Ndour daanaka plainte bo teg na ko ci taabalu procureur de la République. nu si mhm. nu si nuy xool fu wànn di mujjee katam mhm. ci mbir moomu kii di Juan Branco dafa daal di réagir ci page Xam. Mhm. di ñu xamal ni Pape Ablaye Touré victime de torture sous le régime de Macky Sall vient d'enclencher des procédures judiciaires pour séquestration, enlèvement illégal, torture. coups euh, et blessures et tentatives d'assassinat nous l'accompagnerons dans cette procédure maanaam euh, plainte bi nga xam ni euh, moom Pape Alé Touré dugal na ko daanaka du si wet benn yoon. Mhm. kii di Juan Branco fas yéene na ko ci daal di accompagner alors acte bi nga xam ne l'avocat jot na ko daal di def nan nga ko mën jàngatee. oui defe naa ni cette affaire là moom mérité na ñu mu am benn attention bu particulière mm. rawatina justice mën ci def liggéey ci nu mu gën a gaawee. Mm-hmm. parce dañuy am occasion wu dugg ci yenn yoo xamante ne nii maanaam euh, loi d'amnistie bi daf ko protéger. Uh-huh. maanaam bii benn fee la boo xam ne dafa nduróog yooyu te bii mbirum torture la donc euh, loi d'amnistie bi mënu ko mënu mënu mënu ko protéger. Uh-huh. donc lii moo war a nekk mooy buntu. maanaam buntu bi ñu war a jaaree pour lijjanti euh, fee yi nga xam ne am na au Sénégal dans le cadre des manifestations bakkan yi rot ak. Uh-huh. mbirum nervi yeeg rey geeg yeneen ak yeneen. donc bii premier mbir moo xam ne si la ñuy man te jàpp naa ne su en réglant ce problème la yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war na ñëw dans la suite fa lay jaaree feeñ. Mhm. donc je pense que moom comme ni mu ko defee tey porter plainte contre euh, ñu nga xam ne ñoom la cité. Mhm. Euh, cité euh, le l' ex ministre de de l' intérieur Antoine Antoine jom te xale mhm. di ko woowee Antoine ñàkk Diome. <laughs> ak <laughs> le le général Moussa Fall <laughs> ak ki nga xam ne. chef le chef Sow boobu ak X. Mhm. x moom tamit moom x moom moom moom la ñu war a wër ba jàpp ko. Mhm. voilà lijjanti ces ces affaires là parce que Antoine Diome euh, ministre en tant que ministre de l' intérieur. Mhm. ak mbir yooyu noonu xew il il est concerné sur cette affaire là la gendarmerie euh, kii moo ko jiite woon Moussa Fall. donc moom it il est concerné euh, Pape Malick Ndour. yi jàpp. Euh, Pape Abdoulaye Touré ay nervi yu ko jàpp naan ko ñun on est des éléments de Pape Malick Ndour et dem di présenter wu devant des gendarmes pour leur dire que nous sommes des éléments de Pape Malick Ndour mhm. di collaborer ak ñoom donc loolu rek preuve la si collaboration bi doon am entre des nervis ak des forces de l'ordre donc pour man mbir moom moom il faut ñu mettre ko claire ndax lu lu lu soxal askan wi la. exactement c'est c'est très important alors Momo euh, dañuy daal di waxtaanee sortie bi nga xam ni euh, moom Amadou Ba jot na ko daal def nag euh, démb ak parti bu yees bi nga xam ni jot na ko daal di bind moom nag ci boobule parti mi ngi xamal ni politique. Euh, taxu kaa jóg waaye aussi appui baax a baax li nga xam ne nag moo di askanub euh, Sénégal moom moo ko daa di euh, tax a jóg waaye nag ci boobu leen ndaje daanaka ñu si ëpp nekk ay responsable ci parti bi di APR wala mhm. coalition Benno Bokk Yaakaar daanaka ñu si bëri do gisuñu seen teewaay foofu la ci boobu leen ndaje donc amul baax aussi si discours am wax na ba daaneel dégguñu beneen fu mu tuddee turu ki nga xam nag moo di Macky Sall du ay député du kenn ku ñëw teewe boobu leen ndaje alors tey ji nouvelle responsabilité bi nga xam ne moom Amadou Ba jàngate aussi discours bi nga xam ne gis na ko dinu xamal ni yàgg na dégg euh, euh, réaction wu li nga xam ne nag moo di sénégalais actuellement nag il est temps mu daal di agir oui euh, su ñuy wax nouvelle nouvelle nouvelle responsabilité <laughs> sama ci sama xel dama naan moom kon xanaa peut-être c'est quelqu'un bu dem ba il s'est rendu compte de de son irresponsabilité mhm. <laughs> mu indi de nouvelles responsabilités mais Amadou Ba Uh-huh. yaakaar naa ni euh, Cheikh Bara laa dégg muy tooñ. Uh-huh. mu ne mi ngi soog a gis ku dem ba am 63 ans di sos parti politique. Uh-huh. loolu moom defe naa c'est un fait inédit. Euh, mais tey moom euh, déjà li njëkk a am li njëkk a nekk conséquence bi rek mooy éclatement ci biir APR ci biir Benno Bokk Yaakaar. mooy tey moom buy quitter. lu mu dee dee dee dina yóbbaale tey ci ay ci ay ci ay leader ci ci parti boobu noonu waaye yóbbaale ci lu bëri ci électorat parce mmh. que euh, tey jii Amadou Ba ñëpp xam nañ ne d'ailleurs sax c'est le chouchou euh, de la presse. te da mmh. ngay gis façon bi.